am na loo xamante ni tey bu ñu demee ba tàggatu ci. Mhm. ba ci murit gi ba am melokaanu ci mel. Mhm. Baye Matar moom defal loolu lépp. yàlla na ko yàlla loolu yërmande ak njëggal. bari na murit yoo xam ne si fii bu leen di tuddi murit. benn ci man wala ñu ne teel maam joojooy tax. waaw Baye Matar. xam hmm. eh, na ay moromam yoo xam ni. Hmm. muy yëngoo. na ko na boo tasee ak ñoom duñu la nuru mukk doomi soxla waaye macha allah. wallaahi dafa yiwu nag. kon yow. ak ci ak liggéeyam ngay sëmb. da ngay liggéey nag ba sof ci moom. yàlla na dafa am nag ñaari affaire yu nga xamante ne moo ci nekk te benn bi ci li ma jàpp. Hmm. ak li wax. da nga ko réussir te mu jafe réussir. xam mooy la. Mm-hmm. nekk ci langue politique yi ba pare nekk ci sëriñ bi. dafa pare nekk ci sëriñ bi xaw a dominer dominer. langue politique ah, parce que dafa am nit ñi tamit dañu am seenu jàngat di xalaat di xam li ñuy wax lan la. Mm. ñu xam ko parce que tey jii tey am murit mën na fee ñëw. doon ab politicien politicien bi ëpp doole liggéeyam ci sëriñ bi ba bu ñëwee ni ñu ko war a tegee ak ni ñu ko war a fonkee sax duñ ko fonkee bu waxee sax dana eh bu waxee nañ mu dem rek. te fekk am murit la doo ko ci mën a génne parce que ci biir liggéey bi la bokk mais ki nga xamante ne nag am niveau dafa ëpp maanaam ci politique bi maanaam taalibe gi daf ko ëpp muur ko kooku booy da ngay sañ wax ci moom mm-hmm. te kooku li ngay wax day doon dëgg ci moom loolu nag nga xamante ne tey jii sa maam ak keneen ak keneen ñoom ñëpp dañ fi bokkoon nekk nga téye loolu ba nëga ni ba tey jii ñu lay xoolee ak taalibe kon mm-hmm. yàgg moo ko waral moo tax nag loolu noonu mm-hmm. tawfeex rek nga ciy mën a ndax mbir moom boo ci bokkee te xamne mom sa saa beure ci seen biir kenn du la xolé lenn lan da nan am mourid la am mourid la mom lolu mom moy moy moy sulo grand bu mag bi te bobu nak mom dang ko réussir alhamdullah so ko réussir won bul wax sama classe gi mom am nañ ful la duñu wax sax la ñuy taxaw jàpp seen jàpp réussir yi nit réussir mo tax ñu nangul loxo mo tax dañ lañuy ñaanal nak lolu sama borom téye ko amin ya rabbal ndax lo roy rek lañ lay xoole mourid amin ya lolu moy insigne bi mo tax ñun ñi fi tok ñepp carrière yëpp dañ ko plongé ci sëñ bi te dootuñu ko jël kon nag loolu yàlla na yàgg seede yii na nga xam seen magi taalibe yeeg say nijaay ak ñooñu ñëpp seedeel nañ la ko yaa ci des gën a góorgóorlu waat te takkaat la say te dem te xam ne moom ku wàcc rek da ngaa la sëñ Modou Amin Tafal wàcc moom ak gar ak garaatu Mouride bàmmeel la kon nañ ko xaar foofu yàlla na yeex na آمين يا رب آمين يا رب آمين يا رب آمين